ñuy indi ay balai ñeneen yi ay pelle wala sax ay brouettes ci commune Sicap Liberté jëwriñ mi ñu dénk microfinance ak économie sociale defa mobiliser wu ngir set setal gox yi yëpp. c'est la deuxième fois may teew de bi paas teewoon na. ah dama xam kat sita bi su setee ñoko mom tamit su setul ñoko mom fo ngi ñu setal ko rek. dëkk bu su tilimee dërëb bi du dem fenn. doomu sikap yëpp a mak ndaw góor ak jigen ñun ñëpp a takku pour kenn ban ñu gën demin ci wax depuis buñ ko commencé balé passé ba tay wa sikap nopi wuñ ci ci. liberté 3 5 ba 6 askan bi yépp mobiliser wu ngir ak sandi lu ak salté ci quartier bi yépp loolu yépp ci kanam ki nga a di ministre vraiment fi ñepp a mobilisé te bi président yëkkatee kàddoom ba légui population yi chaque jour ñu dajé réunion sét nan lañu wara démé ci liggéey bi motax tay ñom ñoom bi ñu tàmbalee ñu wane ay axes yo xamné fa lañu wara jaar pour def liggéey bi dugg ci kër yi def nañu juróom téeméeri kër yoo xam ne dañu dox ak seen tànk këroo kër ñu dugg fa sensibiliser nit ñi gëm nañ ne suñu boole suñuy doole mën nañu am ay réussite ñuy ñaax Sénégal yëpp kenn ku ne bu defaree gox bu mu ne euh, dinañ mën a yegg ci émergence euh, bi ñu bëgg ñii di waa Sicap Liberté dañu anticiper bis bi ñu duppee cleaning day mi nga xamante ne moom la président Macky Sall initié fii ngir rekk Sénégal mën a bokk ci réew yi nga xamante ne dañoo set fii ci Afrique moo tax ñi di waa Sicap Liberté di sàkku ñëpp mbooloo doon benn ngir rekk dëkk bi mën a set. Sénégal gii fañ ko bëgg a jëmee mën na fa nekk mu nekk exemple di royuwaay ci réew yëpp kenn ku nekk da ngay jël Sénégal def ko muy sa kër kenn du jël sa kër di ko def ci mbalit kenn du jël sa kër di ko tilimal kenn ku nekk bi amee esprit boobu rek nga xam ne sa xel dafay set sa xol dafay set quartier bi nga nekk set réew mi yëpp set. ñàkk poubelle bi luñ ci mun a gën a taxawee mu gën a baax ndax bu ñuy bale bés bu nekk te amuñ fuñ ko sotti c'est zéro. askan commune ci Sicap Liberté gis ni clinique Ndeye bi doon na lu baax ci suñu réew. ñoo ngi rafetlu accompagnement ministre Zahra Iyane Thiam pour seetal seen commune bi li ñuy sàkku léegi moo di ñu mën a am ay poubelle ngir rekk nit ñi bañ a sànni salte bi ci suuf.